yaakaar naa ne tey mën nañ wax ne nous avons le verdict du 23 janvier 2021 les femmes de Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar par leur engagement si seen mobilisation bu taaru bi si seen taxawaay si seen pas-pas tey yaakaar naa ne li ngeen envoyé ko message mooy que ne y a pas photo incha le janvier danañu ñun te mën nañ ko wax reconstruire Dakar am na ñoo xamante ne dafa mel ni dañoo xaw a réeré seen ak seeni élément de langage. mënuloo yor une ville de 2009 à 2014 yore ko de 2014 à 2021 ñu dem 2022 nga yeewu ne waa Dakar dama bëgg a reconstruire cette ville yow kay li nga war a def mooy sagement ñëw def le bilan devant effectivement les Dakarois le bilan bi ñu war a def mooy que ne 2009 ba 2014 ensuite 2014 ba maintenant Dakar waaye dañ doon seet ku leen mën a jox un cadre de vie décent gisuñu ko Dakar waaye di seet ku leen mën a jox une ville sécure avec la sécurité dans l'ensemble des malheureusement gisuñu ko. Dakar waaye yi dañ doon seet ku leen a jox une ville avec des trottoirs zéro sable un barrage partout malheureusement les Dakarois n'ont pas vu ça Dakar waaye dañ doon sûrs des femmes et des jeunes accompagnés bien formés et bien financés dans leur entrepreneuriat Dakar waaye yi gisuñu Dakar waaye yi dañ doon xaar ñu positionné waat Dakar comme étant la plus belle capitale monde la plus belle ville d' malheureusement Dakar waaye dañu gis Dakar boo xamante ne dañ ko delloo gannaaw les Dakar waa devaient effectivement xaar Dakar boo xamee dañoo yaru ñi dañoo tey ñi dañoo man ñi dañoo xam lan la Dakar waaye di xaar mais malheureusement les Dakarois depuis 2009 de 2014 à 2021 ont vu des élus locaux un management de ville boo xamante ne bu leen déggee rek ñu ngi leen déggee ci xeex bu ñu leen déggee ñu leen dégg ci xuloo bu ñu leen Dakar waaye nee ne dañoo bëgg a jël suñu Dakar jox ko ñoo xamante ne dañoo jaamu soxlay Dakar jël Dakar jox ko ñoo xamante ne bu ñu xëyee danañu xool lan la Dakar soxla ñu taxaw si Dakar dafa soxla mu nekk une capitale boo xamante ne la sécurité va régner dans les quartiers Dakar dafa soxla un environnement sain un Dakar vert avec des jardins partout pour que les familles puissent s'épanouir yéen jigéen ñi Dakar da ngeen soxla bu ngeen bëggee financement. dem en réalité dans les institutions, mais des institutions accompagnées par votre ville avec un financement adapté des fonds de Dakar. Dakar boobu moom lañ leen bëgg defaral tey moo tax quand je vois les femmes de Dakar ñu taxaw tey comme un seul homme taxaw ne ma le 23 janvier 2022 danañu la jox Dakar dama naan alhamdulilah. Parce que le Dakar réel est là devant moi. Dakar réel ñu ngi nii toog yéen yéen a yor famille yéen xale yi yéen a yor soxla ngeen maire boo xamante ne bu xëyee préoccupation mooy mu taxaw xool nan lay faje soxla Dakar waay bon nag seen engagement rafetlu naa ko et à tour je prends l'engagement devant les Dakaroises et les Dakarois, ici et maintenant devant les femmes de Benno Bokk Yakaar, d'être un maire exemplaire, un maire qui va cultiver l'exemplarité et la redevabilité. C'est cela que Dakar attend. Bon nag bés bi rafet pare yaakaar naa ne. tey ku gis lii di nga xam ne ñi jot pour jël Dakar en ay responsable lañ dix-neuf communes ñoo xamante ne ay responsable rek mu mat ñoo fa ñoom ñoo taxaw pour bëgg jël mbir bi defaraat ko kon nag li may wax les femmes de Benno Bokk Yaakaar mooy mobilisez-vous dans les quartiers entrez dans chaque concession dugal leen dans chaque maison dans dans chaque chambre pour apporter le message de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est le message de la reconstruction de la ville en vérité dañu war a tabaxaat Dakar dañu war a defar Dakar bu dakaar boo xamante ne boo demee à l'international di ko représenter danañu xam ne kii représenter Dakar ce n'est pas quelqu'un du Far West mais c'est quelqu'un qui est effectivement d'une certaine maturité pour pouvoir représenter la ville capitale de notre pays loolu la ñuy xaar kon nag ma terminer l'honorable ma terminer di wax ne di wax ne li ñu def tey c'est juste un avant-goût mais fa ñu jëm yéen lañ koy àndal si quartier lu tax ma ne yéen lañ koy àndal si quartier parce que man maay tête de liste Benno Bokk Yaakaar fii si Dakar xam ngeen la liste est paritaire mooy dañuy jël góor teg si jigéen ba ñu ne lañ si teg son excellence le président Macky Sall dafa teg loxoom si Ndeye Saly Diop Dieng te moom la ñu teg moom mën naa wax ne Ndeye Saly Diop Dieng moom moo topp si Abdoulaye Diouf Sarr pour que man ak moom ak ñi topp si ñun ñëpp ñu dem seeti Dakar waa ak Dakar waa yi leen lan leen di indil pour Dakar programme boobu nag programme bu ambitieux parce que bu ñu koy présenté Dakar waa yaakaar naa ne da nekk bés boo xamante ne bés bu mag la Dakar waa yi xam ne benn ñaata ak sam ñaata bu wóor la maa ngi leen di remercier bu baax